Mine Diata, je suis euh, ancien chef de station de Sud FM à Thiès, collaborateur direct de Babacar Touré et aujourd'hui conseiller en communication à l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Babacar Touré nit ku baax la booy wax ci nasaraan booy wut booy wut gor ak ku am njàmbaar ci liggéeyam ak ku amul dellu gannaaw ci ci wax dëgg booy taseeg Babacar Touré teel ci loxoom. kooku mooy Babacar Touré Babacar Touré man dama gis ñetti dimension ci moom boo seetloo da ngay njëkk xool ni moom nit nit la nit nitu nit nitu kese la c'était un homme entier nit ku baax koo xam ne li tubaab di wax il avait le cœur sur la main xaalis bool boolewu koog doomu adama alalam boole koog doomu adama euh, dara jaag xeet lépp yi nga xam ne addu li leen ci àdduna li doomu adama gën a bëgg yooyu yëpp yit yite yëkkatiwu ko yooyu donc yooyu taxul boole ko boolewu ko doomu adama nit koo xam ne il avec la kër sur la main dara maye ba maye ba fu dara newul di def aussi ay teranga aussi ci ci euh, donc euh, dëkk di ci donc ci doomu aadama yi di def social bi ngay wax noonu di tabax ay jàkk donc nit ku gëmoon suñu borom si di def xeetu xéwal yu yu ne lépp lu mu mën a yëkkati doomu aadama ormal doomu aadama Babacar Touré def na ko sur terre loolu muy première dimension deuxième dimension mu nekkoon journaliste bu xarañ koo xam ne man sama jëmmi bopp man néew na lu ma gis journaliste bu bu bu amee plume bu ñëwee ni Babacar Touré ban yàgg te yàgg naa ci presse maa ngi bëgg yàgg nag ci presse def naa fi lu lu toll ci ñaar fukki at ak lu tege waaye néew la man li ma lii journaliste di bind man mu may yéem loolu mooy lu ko yàlla mayoon aussi ci wàllu plume ci wàllu presse aussi ñu ko képp ku dëgg aussi war nga ko ko war nga ko ko aussi euh, seedal mu mu nekk koo xam ne ay éditorium niñ ko waxee ci nasaraan dañ ko doon xaar ah au Sénégal mais en Afrique aussi képp ku nekk kilifa ci réew mi nga bëggal réew mi jàmm Babacar Touré bu bindee di nga ko di nga ko saytu di nga liir xam li mu wax.